par d'un consensus mais c'est dernièrement qu'on a vu que la charte a été mise de côté et cette charte-là a été remplacée par des communiqués et les communiqués les problème avant le parrainage la voie la plus simple xam nga moo doon lan rationaliser les partis politiques c'est important si on avait mm-hmm. aujourd'hui il au Sénégal vingt à vingt cinq partis trois cents yi tëb nañ à mm. partir de vingt cinq partis je pense que mën nga raisonner parce que parti condition yi ñu teg. la loi depuis 85 sax dafa bëri. xam nga à 300 il faut laisser tout le monde compétir. nga def am condition yi ñu ko teg par année. en fonction de l' élection présidentielle yi mujj am na ñoo xam ne buñ bokkul dañ naan la parti boo xam ne bokkoo ñetti élection yii mujj tegaloo. seul dañ c' est à dire y' avait des il fallait d' abord avant ngay dugg ci la tête di rek le plus difficile. nga assainir l'espace politique en rationalisant les partis politiques ba ku ñëw ay loué ay ay ay ay ay récépissé mhm. ku ñëw créer parti APR ci boppam ne respecte pas les conditions te gis nga le sujet les plus importants dialogue da ko bàyyi mooy le financement des mhm. partis de la campagne de de de la campagne ok dañoo am pétrole ak gaz aujourd'hui les gens vont da nga gis yenn candidats yoo xam da ngay toog na mais ñii fu ñu jëlee moyen mhm. Mm-hmm. mais ñuy mooy yi ñuy campagne fu ñu ko jëlee. sa mm-hmm. cette question a été totalement ignorée maanaam le fond du problème on est on a fait du cosmétique te avec Macky Sall ku def cosmétique gis nga même accord boo koy signé il faut une autorité indépendante buy veiller à l' accord. tey li ngeen signé bu ko Macky Sall liiru wala il l'a pas compris comme ça. il l'a pas mis en jëloo sax garantie de mise en œuvre des des des accords ah est-ce nga fi ma la mm-hmm. su nee nii laay jaar xam nga nee nga dañuy modifier est-ce que bind nañ ci suuf fu ñuy jaar ba modifier maanaam yow da nga naan man au moins les accords que j'ai signés y a indépendante qui est chargée qui est garant bu ko respecté wul ma plaindre wu ci moom. mu ne Macky Sall déedéet administration bi man maay garant bi on n'a pas signé ça. li ngeen signé ak li ngeen bëgg a def comme ça la le conseil constitutionnel pourra dire ah ah wala la loi nga am. mais yow tu signes un accord des accords avec un gars d'une fourberie exceptionnelle connu <laughs> pour sa malhonnêteté pour son inconstance gis nga ni mu tëjee Khalifa. non Amadou Ba moo leen d' accord le président ne fait que. dans le parjure ça oui c'est la vérité. li muy wax fii li muy wax fii li muy nekk fii nekk ay élément de proposition. ñoom s'il l'avait sifflé wala s'il était présent. est-ce que non non yéen a dem xam nga ñun on était ñun bu ñu bàyyi woon. au départ comme je vous ai dit personne n'était contre le dialogue mu yóbbu ñu dans un traquenard ñu ne ko boo bëggee ñu jaloo terme de référence yi dañ koy teg ba pare. ngeen waxtaan ci ñu waxtaan surtout.